وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سار وفي سفر هماني ألا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سار وفي سفر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 mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina suñu mbokki internet yi nga xam ne yéenay topp seen chaîne bi di Khidma 28 TV muy télé bi leen di toppal tànki sëriñ bi ñu ngi fii nag tey ci Touba Toul xombal mooy dëkk bi nga xam ne moom lañ gën a miin ci route nationale numéro 1 bi tey jii nag di bisub gaawu ñaar fukki fan ak juróom ci zone xinda atum junne ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci ati gàddaay gi war a tombeeg it tolloog le 25 juin 2022 ñu ngi fii nag tey ci pàkk bu làpp bu tedd muy pàkku maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam feggoog sëtam bu tedd bi ñu tuddee ko maamam muy maam Cheikh ak wajuróom mu sell bi nga xam ne muy sëñ Maam Mor moom lañu romb ci bunt bi nuyoo moom léegi mu jox ñu ndigalu tàbbi ci biir ñi ngi feggoog suñu mbokkum taalibe di ku baax di boroom xam-xam sëñ Ibrahima Tall fii ci xombal ñu miin ko lool ci xam-xam ak tasaare njàngaleem sëriñ bi xam naa moom la ñuy jox mu ubbil sëriñ bi ci kàddu bu noppee ñu soog a sóoboo moom ci lef wi di nuyu ak siyaare suñu kilifa docteur bala Mbacké Mboup ngant moo tax waaye jotaay bi moo ko waroon ànd ak ñun di siyaare caméraman bi sëñ Fallou Fall di ko siyaare di jox euh, sëñ Ibrahima rek bu ko defee ñu soobu ci lef yi incha allahu taala bisimilah sëñ Ibrahima. waaw alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah rabbi israh li sadri wa yashir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel ci jataay bu tedd bii nu am ci fii ci Touba Toul bokk ci barab sëriñ bi bokk ci dëkk yi nga xam ne mënuñoo lim dëkk sëñ Touba yi te boole wuñ ko ci nu fekk si fi nag sëtam bu tedd bii fi nekk di sëriñ Maam Mor Mbàkke ibnu sëriñ Abdul Xafoor ibnu sëriñ Mamadou Mamoun ibnu maam Cheikh Anta radiallahu anhum boole nag doomam ju tedd jiit di sëriñ Sidi Mbàkke moom sëñ Maam Mor di boroom xam-xam di sëñ daara di jàngale di yar yàlla def nag sëñ Mamour wax ne nañ dem ci moom wax nu jéegooy sëñ bi fii ci barab bi ak jéegooy maam Cheikh Anta ak njabootug maam Cheikh Anta gi nga xam ne jaar nañ fi loolu daal lañ bëgg mu leer ba taalibe yi xam tubaatul gi ni mu toll ci yoon wi incha allah loolu nag sëriñ bi dina ci ñëw incha allah kon ñu teewlu ko bu baax a baax incha allah. kon nu bokk rek ñu ngi siyaare sañ maam Balla Mbuub nag ak mbooleem mbokk yi nga xam ne ñoom laa ndal ki alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah rabbi israh li sadri wa yashir amri waxlul xuqdatan min lisaani yafahu qawli mbokki jullit yi mbokki wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuy di leen ziara di leen ndokkeel jataay bu tedd bi nu amal fii ci Touba Toul ci biir kër gi nga xam ne kër maam Cheikh Anta la fekk fi sëtam bu tedd bi di sëriñ maam Mor Mbacke moom sëñ Abdul Xafour ibnu sëñ Mudu Maamun maam Cheikh Anta radiyallahu anhu mu fekkoog nag doomam ju tedd ji sëriñ Sidi Mbacke di borom xam-xam di sëñ daara di jàngalekat di yarkat nekk ci wati way juróom yàlla dogal nag way juróom boole noog Xidma TV bi pour ñu war a leeral dara ci jeexiti sëñ bi mu ñëwoon fii ci Touba ak jeexiti maam si Anta ak njabootam gi nga xam ne ñoom la fi dee ba ci ñoom ñi fi nekk tey wutu fi maam si Anta loolu daal lañu bëgg mu leer ci boppi jullit yi ak taalibe yi noo xam ne fii ci tubaatul barab la ci barab bi sëriñ bi ñu war a xam ni mu toll ci yoon wi ak cosaanal marché bi nga xam ne tey ginnaaw marché Diaobé mooy marché bi gën a siiw ci Sénégal loolu nag incha allah sëriñ bi dina ci ñu dikkal incha allah kon ñu bàyyi leen ak sëriñ Sidil Muxtaar bismillah wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa unib bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi wa ummati wajal kalaami rachida wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida ñu ngi nuyu mbokki jullit yi ñuy teewlu ñëpp ci télévision xidma 28 TV ginnaaw biñ jiitala jiitalee nuyu Cheikh Mouhamadou Mountakha cay wax ci kilifteefam ak ci ndigalam di ko ñaanal suñu borom bàyyi ko fa mu fi loolu te ak ci kilifteefu Serigne Abo Mouhamed Mbakke nga xam ne moo nekk Daaru Salaam nekkal fa waa kër Serigne kër gi di leen nuyu it ci turu Serigne Mamour Mbakke xam ne moo yor kër gi ñu nekk léegi nekkal fii Serigne gaawan di nuyu mbokki jullit yépp di leen nuyu yéen kilifa yi seen bi nga xam ne moo moo fi ñëw tey ji di xeeñcu mburum ku baax ki Seexna Ahmadul Xadim biñ di nuyoo kilifa gi ko jiite rek muy sëñ Balla Mbàkke Mbuub danañu ko mën a jàllaleel ci personnel bi nga xam ne ñooy yëngu ci kër googu gépp dañaan suñu borom mu yëkkati ko taxawal ko ba lépp lu ngeen ci naal ngeen mën ko ci am ci barkeb Seexul Xadim te am nañ ci yaakaar loolu ndax lii leen tax a jóg mësuñoo gis kenn ku ko ku ci mës a ci ànd ak pas bu wër ci amu ca lam bëgg kon yàlla na ko yàlla àggale fu ngeen ko bëgg ci barke Seexul Xadim waaye kër gi ju nekk nag Tuubaa la ci dëkk bi tuddoon Tuul rek sëñ gaawaan bi mu fi jëndee kër gi ñu nekk mu tolloon ci hectare la tudde kër gi tuubaatul waaye mbirum sëriñ Touba dadul yem rek fam famuy yem fekkente ne pas-pas bu wér am na ci day sar mu tax mu mujj commune bépp tudd tuubaatul léegi waaye kër gi rek moo tuddoon tuubaatul waaye dëkk bi tuul la tuddoon ba léegi sax nga dégg léeg-léeg ku naan tuul waaye nag tuubaatul ji moom léegi leer na ci ba ci kayit yeeg commune beeg lépp tuubaatul lañ ko woowee waaye sëñ Gaawaan moo tudde woon kër gi ñu dëkk tuubaatul li ko fi indi nag mooy xeeñtu mbirum Serigne Touba mi leen tax a jóg moo fi indi Serigne gaawan fii ci kër gi ci dëkk bi Serigne bi bi mu jógee ci géej gi dafa def juróom benn weer daaru ma naan ginnaaw bi mu jaaree daaru salaam ci ngan ga juróom benn weer la def waxtu yi ñu nekk rek daanaka la dem daaru ma naan ndax dañoo war mu ñëw fa ba am ñaar ko fan la dem daaru salaam am fa weer ñaar ko fan ci weeru Zulqaada yi ñu nekk nga xam teel ñaar ko ci la dem daaru ma naan gàmm ko ca topp ba bis ba dellusee la fa xëyee tolloog bisub gaaw gàmm googu mooy gàmm gi mu njëkk gàmm ci senegal ginnaaw bi mu jógee ci géej gi mu doon gàmm gu xumb xumb xumb xumb lool neexoon lool mag ñëpp daje fa ñu gàmm fu gu wër donte fekk na jafe yi tàmbali woon diggante ak mbaaxaan jóob gàmm googu la laa dégg ci kilifa gu mag moo xam ne yonent bi sallallahu alayhi ñëw na fa ba sëriñ bi ko ci mbindam yaqini ilal jannati maa laysa yuhmadu rasulun karimun baytana zaara ahmadu suñ kër gii de ahmadu ziyaarate na ko maanaam ñëw na ci kër gi te gàmm googu la ko waxe woon ba bisu gàmm gu dellu see nag ci la jafe-jafe yi taxuñoo jóg mooy diggante mu baaxaan mu xëyee Touba Daaru Manaan yenn ngaabu fanaan ndula wala mu fan wala mu fanaan ngaabu xëye fa waaye daal ñëw na njaareem ci dimaas ji signé fa kayitam wi signé gonte fa ci guddi la fa jógee dox bi muy dox bi muy agsi tubaatul gi fajar weesu na tuuti waaye fi la jullee tàkkusaan kon dafay yendu li ko fi taxaw na jaar boobu tubaab dafa doonoon bërëb boo xamante ni euh, bërëb bu ñu bu ñu bu ñu weg la ci ci ci colonial yi colonialiste yi amoon na armée amoon na euh, bu fekkonte ne du yoonam sax dana fi jaar si ndax ndax weg guñ ko place bu ko bu ko colonialiste yi joxoon ndax ni mu placé woo ci Sénégal la doon la tubaatul noo la ko waraloon mu ñëw fi yendu fi di ngir ay signature yu ñu fa doon def ci yóbbu gi ñu ko war a yóbbaat Mauritanie yoonu Mauritanie la woon fi taxoon a jaar mu yendu fi takkusaan la fi mujj jullee gonde dem Tiwaawoon jaar Louga dem mu fi nekkee nag moom sëriñ bi fii am na menn mag mu fi dëkkoon fii moo xam ne dane maa ko fi gis de mu sol lu weex daal di toog noonu muy toogooy toog ni mu baaxooy toogee nga xam du àgg suuf muy toogaayoo ne ma jot maanaam fu mu dégg allahu akbar mën na bërit bu dee ci ñun niñ ko wooyee mel na ku càpp ne noonu la ko gis mu yor yor yor kurus nam tudde kurus ga sax xëy na ci jamono yooyu ñoom ci ci ci jamono jaahiliya lañ nekk mën naa ne euh, neneen la ko tuddee waaye lépp luñ ci jubloo net la mooy firndeel na sëriñ bi jaar na fi bi mu fi jaaree nag ba jàll dem Mauritanie ba dem Mauritanie ba 1925 la fi sëñ gaawaan nekk ci wër yooyu mu doon wër fu sëriñ bi mas a jaar rek mu def fa jeex ba def fa jeexit mu fësal ko leeral ko ba nit ñi mën caa jariñu moo ko indi tubaatul bi mu ñëwee xàmmee fa sëriñ bi yendoon jullee fa yàlla defal ko tawfeex fi tubaab bi dëkkoon mu doonoon këram kër jënd kër gi tubaab bi dëkkoon fa la dëkkoon étage la ba léegi mi ngi fi fi lañ dëkk ñun ñi sëñ gaawoon jënd ko nekk fi ab diir bu gàtt sëriñ bi bàyyi ko fi dellu wuy boroomam waaye fa nga xam ne fa la fa la sëriñ bi yendu woon jullee fa fa la sëñ Abdou Xafoor waajur sëñ Mamoor mi naaloon juma ba Seex Mamadul Murtada tegoon xeer wi waaye tawfeex ji am dëgg-dëgg sëñ Mamour mi la ko yàlla defal ci la jumaa ji àggee ci loxoom la àggee ci jamono sëriñ Saalix euh, kon ci ci sëñ Mamour la jumaa ji àggee fa sëriñ bi jullee woon fam yendu woon kon loolu mooy li nga xam ne moo fi indi sëñ Gaawaan fii ci dëkk bi sëñ Gaawaan ni nga xam noonu la baaxoo fu mu demit li doon métier ba tax ñaan moo ëpp alal ci Afrique ci jënd jaay la bokkoon magasin bu rëy rëy la fi defoon bu waxtu wi jotee lam fa dencoon mu génne ko ñuy wax muxtakiruun yi ixtikaar mooy ko xam na ngay jënd gerte wala dugub denc ko ba mu seer nga di ko jaayaat jamono yi ci la ñuy bëri xaalis loolu ñoom waaye ñoom bu ñu jënd ngir denc bu ëllëgee ngir ñu jaayaat ko sëñ gaaw noonu la jënd doog ñoom suñ demee ba ubbi ñu seet la muy jaayee ñoom mu jaayee quoi ko jullit ñi lam ko jënde woon dimbale leen ko noonu la doon def bu fekkee da nga daa jënde woon fanweer ñi jënde fanweer bu waxtu yu jotee ñëpp koy soxla ñee di jaay juróom fukk moom muy jaay fanweer wala mu wàññi ci tuuti sax loolu moo doon liggéeyam waaye liggéey boobu joxu koon woon lim yoroon ci xaalis kenn ku ne xam ne mbirum baatin la rek waaye doonu doon ab liggéey ko doon jox lim doon yor loolu doyu ko mu ubbi fi marché bi nga doon wax sëñ Moussa sëñ sëñ Ibrahima marché bi ni mu ko tàmbalee suuf la jël ñaan ci jox ko ndaw ne ko demal foo bëgg marché bi àgg na fa àgg boobu yàggutoo rek fii la yemoon fii bi ngeen dugg dëkk bi waaye léegi àgg na ci autoroute bu ndax yóbbu nañu fa daral ga léegi nam ci taxawee dëgg-dëgg mbirum baatin la naam waaye nag siiw na ci li ñuy wax xuluwul baali maanaam buñ ko sañee wax xëy na muy taxit nit ñi tooñ ñun waa Daaru Salaam waaye am xel da ko laloon da daan def boo ñëwee indi sa marchandise di jaay nga jaay ba ngoon dalay woo yi ñi jaay si ñëpp lii ñaata nga ne ko juróom fukk mu jëkkat juróom fukki jox la ba moom bagage yi ne ko jëlal yóbbu bu gaaw ne nga indiwaat jaay si waat ci biir marché Touba Toul lu waaye di jaay da koy jënd ba moom ko joxaat la ko ne bu gaaw a ko jaay si waat loolu moo taxool marché bi loolu stratégie boo xamante ni ñëpp mënuñu ko waaye ci ndimbali sëriñ Touba la bokk moom xel la ko yàlla joxoon moo xam ne eh, lu ko sëriñ defaloon rek dëkk bu soriwul dara Serigne yebal na ko fa ci mbir mu fa amoon waaye loolu sax daanaka du jar wax ci ci ci ci ci ci média bi ndax boo xasee wax dëkk bu soriwut rek fa nga jëm dañ ko daal di xam waaye daal yàlla defaloon na ko euh, loo xam ne euh, fu mu fu nekk rek ci ndimbalul sëriñ bi euh, day yomb ci moom lool lu mu fa bëgg a def mu am ko fa lu mu fa bëgg a am mu am ko fa 1927 bi fi sëriñ bi jógee ci la moom it ay jafe-jafe dikkal ko mu dem ci Ségou ginnaaw bi mu jógee Makka ba mu ñibbisee daal di wax na ka ma taxoon di yëngu muy Serigne Touba li ma tax di wut ak di am nekkatu fi kon xàmmeetuma ku boole samay loxo dagg ak samay tànk dagg dootuma dem fenn yëngootuma defatuma dara dem toog Daaru Salaam ba yàlla jëli ko fi. 1919 lañ ñu wax ne mu ëppoon alal ci Afrique te bu ñu fi bàyyeekoo lu néew lañ doon na ci moom waxoon ne la ko doon taxoon di yëngu kon Serigne Touba taxoon rek si mut maawun ki ko njëkk wuutu moo ñëwaat fii Touba Toul sancaat ko 1948 nekk fi euh, di deme ko ñëw di liggéey di yóbbu Touba di liggéey di yóbbu Touba di léegi yóbbu Touba waaye diggante bi mu fi nekk ci la fi samp Sëñ Abdou Khafar waajuru Sëñ Mamour yi 1948 jooju li ko fi tax a toog lii la dañ fee àndoon ñëw fi ñu dem ba yéeg ci oto bi di dellu Daaru Salaam ñu ñëw ne ko ah, sa taalibe sàngam de soxnaam am na gone mu ne Abdou Xafar wàccal tudd ko ca boo ko tuddee nga xaar ma fi ba ma dellusiwaat fi xaar boobee nag moo ñu fi bàyyi ba nëgëni ko fi ci noonu ko fi batale ni nekk fi moom it di liggéey ci ci ci ci ci ci yoonu sëriñ bi lu liggéey joxe ko di liggéeyal sëñ Moodu Maawun moom it yàlla defaloon ko tawfeex ju rëy ci pas-pas bu mag a mag a mag yi ñu nettali ci moom lu yéeme wax nañ ni bu ko sëñ mu man masa woo téléphone ba xam ne moom la day sumi mbaxana mi bank tànk yi jublu penku di wuyu ñaari baat yi lay wax waaw incha allah waaw incha allah ba mu coupé xool lam lam lam ko digal nu muy fexe ba sotti waaye kenn du dégg mu ne dinaa ko jéem wala dara nee li ñuy wax téléphone daal weesul suñu mbaxana jublu penku sa tànk bank tànk yi ca naan waaw incha